Actualité oblige. Ramatoulaye Sarr, bonjour. Bonjour à toi, Abidjan. Eh ben, j'espère. que tu vas quand même bien. Oui, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce jour nouveau, puisé de sa bonté et de sa miséricorde. Alors, on va dire Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun, euh, euh, qui, par rapport justement mhm. à cette euh, triste nouvelle que nous venons d'apprendre, le rappel à Dieu de, de, de Imam Alun Badarandao. Bien dit. Voilà, donc, une triste nouvelle, je dirais, pour toute la communauté musulmane, pour mhm. la Ouma islamique. quand mhm. Tantôt, on a suivi aussi ça une salle avec euh, Abdoulaye Pop, bien sûr. Alors, euh, c'est vraiment le cœur meurtri. On a senti un homme avec un cœur meurtri mm. parce que ce fut un compagnon et un ami. Mm-hmm. Une raison qui explique un peu, voilà, qu'il avait euh, un nœud à la gorge et puis qu'il ne pouvait pas trop s'épancher sur ce décès qui a pratiquement mm-hmm. euh, surpris tout le monde. Alors, euh, bah, nous présentons nos condoléances à toute sa famille, à ses amis, à ses proches parents et puis à toute la famille Bijou. Bien sûr, nos condoléances les plus euh, attristées. Donc, euh, voilà, raison pour laquelle, là, nous sommes avec les auditeurs et nous dirons tout le monde pourquoi pas. Bien à vous, Voilà, donc ce sera justement une page qu'on va ouvrir Bijou pour permettre à à que qui le veulent bien dégg nañ ko ci suba muy euh, tiis koo xamante ni nag moom moo wàcc du ñu def lu dul bàyyi la kàddu gi nga am loo ñu ci dénk rek euh, ci li nga xamante ni moo di nouvelle bi gannaaw bañ la ko jaale. Euh, jërëjëf Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay delloo njaal di ko delloo sénégalais yëpp ndax sénégalais boo toog sa tafel tey rek mën nga ko wax ci gën gaale waaye moom itam mën na la wax ci gën di gaale mm-hmm. ndax ki fi jóge moo toll noonu ki fi jógee mooy ki nga xam ne. Euh, euh, am na ay cause yu bari yu mu doon ëre euh, ci biir askan wi waaye amul benn cause boo xam ne ci boppam rek lay dellu loo gis ñu yëkkati ko ci ay kàddu boo ko seetloo bu baax a baax da ngay fekk muy dellu ci askan wi muy loo xam ne ci valeurs yi la défendre valeurs yi teg Sénégal yoon wi nga xam ne suñu kilifa diine yi ñu nga ca doon jaar boo seetloo Imam Ndao ak ay messages yi mu doon véhiculer ak langage yi mu doon tenir ci biir askan wi ne te ku mu nekk koo xam ne nitu message la nit la koo xam ne ku ku ku doon liggéeyal askan wi la ba wàcce liggéey tey kon askan wi yëpp ku fi nekk rek war na mën a jaale boppam ne ko ci ci ndigaale ma Ramatoulaye Sarr à travers yow maa ngi koy jaale mboolem kilifa diine yi di ko jaale nag mboolem kilifa aada yi waaye itam di ko jaale ñi nga xam ne tiis bi ñu nga ko bitim réew nekk ay sénégalais tiis bi ñu dégg ko waroon mën a nekk fii ci Sénégal te sore waay tax ba ñu def loolu ñoom ñëpp ñu jaal leen baax a waaye itam jaale euh, njabootam njabootu boppam bi nga xam ne euh, ñoom la nekkaloon ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fekk ko fa muy dem waaye itam moom mu euh, toog toogal ko moom yàlla ci nga xam ne moom jógee na alors oustaz xëy na dikkaat rek ci li nga xamante ni moo doon ay euh, maanaam euh, li nga xamante ni moom la amee woon taxawaay fii ci kër gi ndax yàgg na saa su nekk dañ koy gis tamit ci plateau yi donc mu mel ni amoon na benn relation bu particulière tamit euh, ak jëm si yàlla gi di El Hadji Sidi amoon na relation boobu soxna Ramatoulaye Sarr ak kër gi waaye amoon na ko spécifiquement ak kër yi Sidi ndax xam nga ne bi mu bi nga xamante ne euh, tuumaal nañu ko teg ko loxo Elhadji Sidi Lamine Niass bokk na ci ñi nga xam ne ñoo porté combat bi di ko liggéey ci ay niveau yu kawe kawe ci façon bu nekk ci plateau yi ak ci euh, même bi mu toogee ak euh, njiitu réew mi sax wax na ko ci ay yoon yoon loolu euh, bokk na ci li nga xam ne sax moo ko génnee moo ko setal ci tuuma boobu ñu ko tuumaloon moo ko génnee ci euh, foofu kon digganteem ak euh, ak Walfadjri démb la woon lu lu jiitu tey waaye itam digganteem ak ki nga xam ne mooy borom Walfadjri weesu na sax foofu ndax ay relation yoo xam ne relation wu daara la doxoon hmm. na ci seen seen ñaari famille yi nga xam ne moom mu ngi bokk ci famille boo xam ne ni ñu leen xamee foofu mooy alquran ni ñu leen xamee foofu mooy euh, woote jëmale ci yàlla moo tax loolu yombaloon lool euh, li nga xam ne am na diggante diggante ak euh, seen El Hadj xam nga ni itam ku disponible loon la fii ci Walfadjri mm. boo ko daan woo rek boo ko woowaan rek mu dal di ñëw dal di def émission bi nga koy bi koy bi koy proposé mm-hmm. man sax semaine bi nii sax maa ngi doon xalaat loo xam émission boo xam ne mm-hmm. ne woon naa format bu ma ko jëlee naa ko ci woo fekk dégg moo la yàlla dogal loolu mi ngi noonu Oustaz Assane ñu lay jaajëfal bu baax di la masawaat euh, ci diis euh, gile di xam ne rek ne euh, Walfadjri kon nag dañu fas yéene rek ubbi tamit antenne bi kii ngir képp koo xamante ni ci Sénégal nga fas yéene rek dénk tamit rendre ko hommage ndax ñuy fàttali rek nag moom Imam Alioune ndaw nag daal dina rek génn àddina nag bi su guddi gannaaw nag bañ ko yóbbee fële ci hôpital Fann Oustaz Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax eh, ah, voilà donc euh, comme euh, dit tantôt nous allons ouvrir euh, nos antennes à vous chers auditeurs afin de rendre un dernier hommage à cet homme. Imam Alvin Badarandaou, qui a mené plusieurs combats et qui était également un habitué de la maison. On l'a vu sur plusieurs plateaux ici, notamment en balance avec Pam Ndiaye. Alors, ñu jël kooku nekk ci buum bi. allo asalaamaaleykum. oui alaikum. aleykum Alaikum ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi tudd Malick Cissé dëkk Mirina Parta. ñu ngi lay ziar Malick. waaw maa ngi ne jaale Sénégal war ngal képp liñ bokk. Mhm. te alxuraan moo wax ne tabaarakallasi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun mhm. allati xalaqal mawt wal xayaata mu dellu wax ne kullu nafsin saa'iqatul mawti mhm. mu dellu wax ne kullu man xalayha ihsaanin kon Oustaz Alioune Badara Ndao yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana jënadul firdawsi sax ñi ci barkeem ci barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu jaajëfal ko xool rek keneen i tamit ci ginnaawam amaana dinañu jot tamit suñu naataango bi ñu toogal fële ci diwaanu Kaolack di rek Alhassane Ba ngir moom tamit xool tiis bi nga xamante ni nag tey wàcc na ci askan wi waa kër foofu la ci Kaolack également ñu xam ne fa la cosaanoo ana nan la ñu rek accueillir accueillir bii nouvelle xaalis du ñu def également lu dul rek ba tey làmb keneen ci buumu jokko bi ñu xool asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatulah. soxna Ramatoulaye Sarr. oui. Ousmane Diouf Talibé El Hadj. sëñ Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax. soxna Ramatoulaye Sarr. bala ma koy jaale kenn wal fajiri laa koy jaale. jërëjëf. wal fajiri laa koy jaale wal fajiri laa koy jaale bala may dem si njaboot di ko jaale Baye Cheikh Tidiane mu may ma ñett sa leew na ñett mhm, di ko jaale mboolem kilifa diine ku nekk ci Sénégal soxna Ramatulaay mhm. am naa mbetteel bi ma amoon ci alaaji di la mu ñett tey jii wallaahi am si am naa ko tey jii mhm. euh, parce que imaam imaam dafa nekk imaam boo xam ne imaam mu ñëpp la imaam boo ko xoolee boo boo da ngay xool seulement imaam Ali Badara Ndao bi rek adduna yëpp day kon imam Alioune Badara Ndao damay ñaan yal na ko yàlla xare aljanna yal na ko yàlla dajale alaaji Idi Lamine ñëpp yal na ko yàlla dajale xaritam si barke sa Mahamad rahmatullahi taala xool fees na mhm. waaye nag yàlla moom moo ñu ko gën a bëgg jël na ko mhm. te yàlla na ko yàlla dajale ak Seydina Mohamed yal na ku yàlla fay lim doon jàngale ci alquran lim doon def ci ndaw imam Alioune Badara Ndao buñ la waxee li lim cadre am da nga naan kon nak xol fees na waaye yal na yàlla jox na ko ñu xolu mu ba mu am amat ci jaar Abdoulaye maa koy jaalaat tous les wal ku nekk wal faj jërëjëf ñu jaajëfal ñu jaajëfal ko moom El Hadj Ousmane ñu jël Alassane Ba fële ci diwaanu Kaolack Alassane ñu ngi lay nuyu Rahmatullahi maa ngi lay fay waaw yaakaar naa ne tiis euh, jot ngeen ci euh, nouvelle bi euh, ñu bàyyi la rek tamit nga wax ñu tuuti ana nan ngeen ko jëlee foofu la ci diwaanu Kaolack yi tamit waaw rahmatulah nekk na mbir moo xamante ni euh, dama koy euh, commencé par naa leen te bi teg na leen euh, ci yoonu jiye boobu te ñu koy doxal ci lu mu waree Euh, dem bi bett na waaye tamit jullit bu ne wala nit ku nekk da ngay xaar bis bu ne li ci doon gën nag moom mooy bu fekk ne la la fi borom bi bàyyi woon yaa ngi ko doon def tey am nañ njort bu baax ni imam la mu warlu woon ak sunu borom mu ngi ko doon def di ko ñaanal fi nga xamante ni rek la ñu jiitu yàlla defal ko ko ay ngëneel ak liggéey yi nga xamante ni mu doon def bu fekk ko fa leneen nag lu yitteel li nga xamante ni piis bi mooy ci këram kañ lañ koy denc ak fan lañ koy denc lépp euh, daañ ci euh, ñëwaat ci kanam ci ay xibaar yu gën a yaatu ak euh, yu gën a leer rahmatulahi taala ñu jaajëfal la bu baax Alhassane Ba mooy suñu naataango bi ñu toogal foofu ci diwaanu kaw Kaolack ni mu ko waxee rek lépp lu aju ci rek denc moom Imam ba dara ndaw ci njaboot geeg lépp daal dinañu ko baaxee fii ci Walf FM 99 point 0 ñu wéyal ba tey rek daal di jël keneen ki nekk ci buum bi allo. waaw allo Rama. oui El waaw na nga def. maa ah man day Imaam Ndao lu mu koy qualifié seexandoo Sidi Lamine dem na ci ci julli bi seexandoo Sidi Lamine dem na euh, euh, am naa benn takk boo xam ne it def naa ko ci nit buy dund ngay xel xel xel yaar fii nitu yàlla la wala du nitu yàlla bàyyee ko xel bis bu ñuy faatu talaata la faatu. maam Alaaji Malick talaata la faatu sëñ Touba talaata la faatu maam Ablaye Niass talaata la faatu kon wax dëgg yàlla du ba ne moom ñoo ñoo tolloo maqaam waaye wax dëgg yàlla ci nit ñu baax nga la bokk te talaata c'est pas évident maanaam bu ñuy werante naan nit ku baax nga ak nit ku ko bu fekkee du dëgg bis booy faatu dana en tout cas ñu ngi koy jaal umma islamique bi man xamante woon naa ak moom yàgg na li koy fulle rek am na xale bu doon jàngal sama doom yi moo doonoon goroom deux mille xale am na am na am na ngénte bu ñu doon ngénte këram deux mille moom fekk na boobu ma xamante ak moom muy jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla ah euh, euh, Sénégal surtout c'est-à-dire bu dem ñëwee moom dem am na ba pare mënatoo ko rattraper waaye li mu waroon a def def na lu bëree bëree bëri éveiller les consciences jox na benn personnalité julli yi jox na benn personnalité doomu daara yi jox na benn personnalité citoyen sénégalais yi am na benn conférence bu muy def fii ci weeru koor la koy def Kaolack biñ ci tàmbalee éveiller les consciences ak léegi ëpp na trente ans laaloo chaque weeru koor mooy dajale jigéen ñi koñam defal leen ko euh, kii autofinancé presque mu ci loolu la la daa développé moom musul bëgg question banque yi musul bëgg ñi moom autofinancé def leen de tell sorte koy yéen ngeen di financé seen bopp daa ci joxe ay kii mas na man maa ngi sant yàlla lii waxuma ko sax pour bàkk waxuma ko pour kii benn bis laa dajee moom ci benn dëj mu ne su fekkoon benn julli bu nekk boo julli ji jumaa nga jël cent franc boo demee yóbbu ko ci jumaa ji yàlla xam na ne ak léegi mat na vingt ans amul benn bis bu may julli ji jumaa l'ensemble samay jabar samay doom yëpp dama koy totaliser bu ma demee yóbbu ko ci jumaa ji àjjuma bu jot nag te loolu maa ngi ko koy sant di ko gërëm profité ci antenne bii di wax ne loolu rek mun na suqale jàkka yi ab ndiktal la woon boo xam ne man de wax dëgg yàlla rek ma jëf boobu ma ko doon jëfe wax gii ma koy wax nag waxu du du du bàkku du ndég ndégtal du leneen mais dama koy wax pour te julli bi partagé